Serigne Mbacké Ndiaye moom mooy njëkk wax mu ne euh, Macky Sall doit se débarrasser de Tanor et de Niass Macky Sall dafa war a tàggoo ak euh, Tanor ak euh, Moustapha Niass mbiri xam nga nag man Serigne Mbacké Ndiaye wax dëgg yàlla je le respecte beaucoup mais man Maam Samb du sama référence du ma meegale te lii muy conseil Macky Sall parce que day noonu Macky Sall day noonu Macky Sall moo tax mooy conseil lii mais bu doon soppeem du ko conseil li mu wax c'est bon politicien la moo xam ne si jublu ko. bu ba waaw mais bon xam nga man dama bëgg a xam moom euh, fan la féete entre PDS non non ak euh, est-ce que il est en route pour aller vers Macky parce que bon d'habitude les les politiciens yenn actes ñuy posé c'est parce que dañuy c'est pas parce que li wax c'est assez objectif sax dañ koy wax pour def eh maa dama bëgg xam est-ce que dafa bëgg a fàttali seen bopp non dem APR peut-être moo tax muy muy loolu mais bon dans la forme de c'est de l'inélégance l'inélégance politique ah nañu waxante dëgg mais dans le fond dama naan bu rek bëree bukkeeg mbaam la rek mbër yee ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy fay ngir bëri. kenn fay la waaw c'est adroit euh, politiquement adroit. politiquement adroit. Euh, Moustapha loo si xam. man no comment. yaa ngi fi wax yaa ngi fi PSE. léegi nga ne no comment. ah mais bon bu fekkee ne ne da nga bëgg a mor si sama kii bon xam nga politiciens yi ñun politiciens c'est un terrain glissant on préfère être au centre. non non fii réew mi réew mi ñoo ko bokk ñun politiciens moomuñu ko. moomuñu ko mais c'est pas grave non du ma ko forcer mais dama bi la ma am na wax lu nekk. waaw du sama sama tempérament sax. Hmm. dañu damay assumer sama kii mais. lii may loolu wax man mënuma ci. prochain bis topp. alors euh, euh, Moussa Bokar Thiam porte-parole du parti socialiste mu ne euh, nous demandons solennellement au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le référendum se tienne dans le courant de l'année 2015 ñu ngi mu daal di ci ni mu gën a gaawee taxawal matukaay yi nga xamante ni mooy mën a tax référendum bi am ci atum 2015 ñu jàll ci leneen Papis Diaw. waaw c'est que moom dafa wax dafa ne mu demande day ñaan. solennellement. waaw waaye dafa am ay rendez-vous ay dates yoo xamante ne dans une république njiitu réew mi moo ko moom moo koy définir moo koy organiser constitution bi ko may loolu. Euh, ñaan nag mun nañ la may ko mun nañ la bañ a may ce qui est important aujourd'hui c'est que référendum boobu pour réduction mandat bi parce que mooy finalité question bi mhm. li laay war a suli une fois nañ ko teg li ñu engagé nañ ko respecté def euh, réduction mandat très bien alors Bouba waaw man euh, en fait xam nga avec avec le recul mhm. ngay jàngat évolution ni mbir yi demee man li ma soxal bon mhm. moom mooy que fu Sénégal toll ak fu Sénégal di dem pour le moment nii damay wax que ni man j'ai une question que je dois poser quoi parce que boo jëlee deux la nar a nekk boo maytul deux ñu def référendum ñu def élection élection législative la normalement ah, après waa élection municipale. waaw man calendrier yooyu yëpp ah, xaw na ub sama bopp si. fii fii réew mi toll est-ce que. ils auront la chance de travailler parce que <laughs> on travaille on, non, devant nous devant nous xaw ma ndax gars yi taxaw nañu mais devant nous on a minimum trois ans de politique de campagne électorale sans cesse xaw ma ndax natt nga sa chance bi bi nga utiliser chance bi mais c'est fort li nga wax xaw ndax natt xaw ma ndax yaa tey wala da nga ni est-ce qu'on aura la chance de travailler c'est très fort Bouba. Mm, je suis absolument d'accord avec lui. non mais la chance ba ma interpellé. waaw li mooy li ñu fi wax waxaat ko. wax dëgg yàlla c'est électoral am na solo. waaye na am temps bu ñu war a liggéey nag. non temps nga wax mais Bouba chance la wax c'est plus fort. chance moom c'est ça veut dire que c'est dramatique. c'est dramatique Charles. Charles da nga jaaxle. non c'est pas drôle Charles. donc quand la chance est convoquée. waaw. oui doy na waar. dana waaw Moustapha. en fait man pour man euh, comme munta ñàkk bu doon sama sago aussi tamit euh, mu ma nekk référendum boo xam ne ni c'est pas coûteux. Hmm. en tout cas daal comme euh, njiitu réew mi dafa bëgg respecter kàddoom na nekk benn respecter kàddoom boo xam ne ne du cher pour sénégalais yi du cher waaw te du gàllankoor dara daal merci beaucoup da ma tëb yow birima birima <laughs> grave sax birima <laughs> waaw non man dama yaakaar ni quand même parti partiste sañ na ni damay ñaan nangam amul débat nangam lañ bëgg mais ka muy mooy xool ndax ban na ko wala mënu ko. solennellement bi tamit dafa c'est à souligner. waaw non mais dafa ñaan di boole. Mm. c'est pas gis bëgg bëggu bëgg bëggu même rek bëgg bëggu parti socialiste. mais bëgg bëggu parti socialiste. mën na nekk tu trop de parti socialiste. mën na allez le suivant il y a beaucoup de non-professionnels parmi les journalistes qui prennent en otage un métier si noble mu ne am na ñu bari ñoo xam ne du ñu ay professionnels euh, jël en otage euh, si biir journalistes yi jël en otage euh, métier moo xamante ni métier mu noble la métier mu am classe Birima man damay wax ne bu otage amoon lu gën a graaw otage la ñu utiliser otage dafa ndaw par rapport nit ñi c'est que dañoo journaliste yi du ay journal mais boo seetloo xaw ma patron de presse dañoo xaw ma dañoo dañoo lan moo ne ci. président moom da ngay déglu li may wax. Hmm. dama ñu ñuy jëli ñoo xam ne. Hmm. parce que da xam ne et puis ñoo ñoo gën a rëy réew mi. ratatatatatata yaakaar ni. ñoo nekk major sax ci seen seen examen bi ñuy génn. ci promotion yi donc dama yaakaar ni loolu lu ñu wax waxaat kolo moo tax may ñaan solennellement monsieur le président de la république seen loi boobu ngeen joxe. mu ñu ko wote ci réew mi musiba la ci réew mi. Charles. waaw lii métti na ma parce que on n'a pas le droit de jouer ak suñu métier. Hmm. waaw métier bu doy waar. yéen ko njëkk a fay seen bopp. Hmm. <laughs> Papis. waaw mais xam nga xam lu ñuy wax euh, dëgg neexul. Hmm. c'est vrai am na li mu wax c'est vrai am na. maintenant euh, moom mooy moo nekk. dépénalisation beeg yëpp daf si ànd c'est-à-dire que ni ñu waree assainir yenn secteurs yi c'est vrai dañu ko war a assainir. l'assurance le secteurs des assurances par mais, exemple. mais mais hmm. mais <laughs> c'est un constat c'est vrai en espérant que on va aller euh, dans de meilleures conditions peut-être c'est vrai. comme man jàngat jàngat bi ma ciy am. moom mooy que dafa bëri ay secteurs sax bu waxuma la affaire journalisme aujourd'hui hmm. on a beaucoup plus beaucoup moins de jàngalekat yu mu on a beaucoup plus moyen de fajkat yu aay. Mm-hmm. on a beaucoup moins beaucoup plus moyen de journal parce que li dañu nekk si benn benn benn. fànn boobu non dafa dañu nekk benn fànn da war a xam ni euh, affaire journalisme ak information dafa am nouvelle technologie bu ñëw. Mm-hmm. xam nga man lan laa dul comprendre est-ce que benn moment nit arrêté na par exemple que nit bind dara. wala ñu def dara sur internet sur un site ñu arrêté pour xam est-ce que la personne bi bind article bi est-ce que journaliste la. quels sont les ban ban moyens la ñu am pour vérifier parce que presse en ligne bi dafa jël le dessus et dafa koy gën a jël. Mmh. dans cinq dix ans sax waxati ay. ay journaux physiques journaux yi mmh. ce que mmh. am nañu benn moyen pour voir parce que su ma amee sama site internet ma jënd Samba muy bind ñuy contrôler que journaliste la. Ah, pour pour commencer c'est un problème problème mooy que dañu nekk jamono il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux. si si si si li ñuy. Ibrahima Lissa Faye il va venir là moom mooy euh, njiitu association presse en ligne. en fait euh, man lu may euh, gën a naqarlu rek mooy que finalement euh, éthique ak déontologie. dafa mm. nekk ci milieu journaliste benn slogan. Mm. dafa war a nekk ay valeurs yu ñuy défendre. parce que journalisme mooy quatrième pouvoir. Mm. donc da ngeen ko war a wone dañ ko war a wone parce que mooy interface si yu bare. si secteur yu bare. mais fii Sénégal dama gis ne ne franchement. lu ñuy wax éthique ak déontologie bi ñuy wax. dañ koy wax nii rek mais mm. nit yi duñ ko appliqué. Mm. buñ ko doon appliqué normalement warul sax am code de la presse. Mm. parce que damay lay laaj métier bu nekk la. métier bu nekk dafa war a am valeur yi ngay défendre. mooy suñu métier ñun bi nga xam ne dañ nekk transport aérien. mooy seen niveau bu ñu ci deful ay règles ak ay garde-fou. yoo xam ne yaa ko defal sa bopp. sans pour autant policier ne la lii wala leneen yow doo ci génn. loolu rek ma ne malheureusement day am toujours ñuy raas jéem ak euh, ci métier yu nekk nag. professeur waaw li mu wax euh, symptôme boo xam ne la mu ngi ci Sénégal partout ah, xam nga bu njëkk waxoon nañ la fi yaa ngi koy fàttaliku ñu ne la ay criminel en blouse blanche ne la ay criminel de la craie wala ne la ay criminel du micro hmm. donc loolu yàgg na fi mais dafay wone rek décadence ak dégénérescence société sénégalaise hmm. domaine boo dem nga gis koo xam ne yaakaar nañ ne moom moo ci expert ba hmm. bu jaarul fenn fu ñu ko tàggatee bu nekk rawatina nag ci journaliste merci beaucoup Moustapha encore Khalifa merci leen di jaajëfal ci liggéey bu bu rafet bi ngeen di def waa TFM groupe bu GFM fa laay wax. merci vraiment merci Khalifa. excellent week-end à toutes et à tous wasalaam. ni bi jolool yu teddi ci melax yi xawee la